kan nga bëggoon lan nga bëggoon PDS def mu soutenir Amadou Ba mbaa mu soutenir Diomaye. déggu li ma la xanaa may man doo dégg de. man waxuma PDS de yow laa wax. man. waaw lan nga bëggoon. man lu ma bëggoon. ci élection mooy Karim Wade ñu xeex pour mu nekk candidat. te amoon nañu moyen yi parce que amoon nañu preuve 3 milliards yi. mais ñoo ngi kat Karim Wade lan nga bëggoon. se détermine sur quoi. soit le PDS déterminé pour Amadou Ba pour Diomaye wala mu abstenir mais comment c'est déterminé xanaa xam xam nga li ngay wax yow élection yi passé na nga naan on s'est déterminé pour Amadou Ba Amadou ah, da nga ne yow amoo woon capacité soutenir Diomaye waaw nga joxe say raisons moo tax wote ma ne la Amadou Ba nga bëggoon ñu soutenir nga ne buñ ko soutenir kon waxuñu dëgg mais yow Doudou Wade ah. lan moo doon sa sa vœu lan nga bëggoon PDS def nga ne ma da nga bëggoon Karim nekk candidat. bu ko ma ne la Karim mënul woon nekk candidat. non attends bul ne mënul woon nekk candidat. nekkul candidat kañ. lan nga bëggoon léegi PDS def. bi mu nekkul candidat sama carte dootuma ko jox nit ma def ko sama poche. nga abstenir comme en 2019. yow yow yow loolu nga bëggoon. donc d'accord ci soutien bi PDS apporté Diomaye. man yëgu ma ne Diomaye dem na candidat sax ba di ko soutenir man làmb ji tëgg yëgu ma ne am na. moonte dekkuma ci amoo ci important ci loolu bul débouché ci leneen awma candidat demuma kenn invité wu ma ñëwuma xam nga tey euh, comment il s'appelle Cheikh Mbacké Samba am na télévision mais demuma ci parce que invité wu te bu ma invité wu ma dem faut pas chercher du midi à 14 heures. mais dañoo gis ci 2024 bi élection bi mu am une dissidence au PDS. Hmm? mu am quinze députés yoo xam ne nee nañu dañoo apporter seen soutien à au candidat au candidat Amadou mais les porte-voix du parti ou la voix euh, déterminante du parti apporter son soutien à basserou Diomaye Faye nga ne jour ba Diomaye di ñëw le parti ñi ñëwoon pour accueillir que ils n'ont pas été conviés pourquoi non waxuma ne ils n'ont pas été de dañ leen parqué comme démb. waaw oh, moo tax dañ leen woon pour ñu teeru ko. pourquoi. je sais pas moo tax ma man du ma teeru jomaay man duma man man jomaay ak Sonko ak keneen du ma leen teeru ci kër Ablaye Wade dañuy ñëw kañ fekk ma biir kër Ablaye Wade ñu dugg fekk ma ma toog mais man duma leen teeru. donc dafa am problème de forme. non du question de forme d'abord xam nga nit politique nit dina baale mais du fàtte. gis nga li say say waxu noonu daaw bu ñu defee leen rek dafa antuwul dama ne ñoom dañuy jugoon pour rey Ablaye Wade wax nañ ko wala waxuñu yow mii may mun a yaa ma ko nettali sa caméra ak sa télévision. faut les waaw moo demoon jeex na mais kooku nag bu ma demee nag ba war a ko sarax ni naa ko sarax mais damay wax demal nga sarax diw mais man bu fekkee dama koy sarax añ bu tàng at naa ko këpp moo tax ñuy ma jox ko ni mu jox mu lekk. mais nan maintenant loolu am na xam nga participer à des élections ak voter ji nit aussi acte citoyen la du rek acte partisan ak acte politique mais Abdoulaye a demandé et venu voter en 2022 et il a fait bouger des gence ñu dem voter ji il a eu d'un apport mais 2019 dafa ne voté wu ma du ma dem ñépp jàpp ci ba mu ne bon comme da ngeen bëgg ñu voté ji démocrate lañu ku nekk na nga woteel li neex mais bu ma sañoon daal si ñetti ñeenti candidats yi woteel leen diw ak diw bàyyi ñaar moonte woon loolu laa def man. du